Il faudra prévoir, euh, ne vous inquiétez pas. D'abord, il nous faut bien gérer le temps, parce que oui, euh, celui qui prend la parole se met au centre. Voilà, donc une bonne gestion du temps. Et ensuite, euh, effectivement, il faut pour permettre aux confrères euh, de pouvoir avoir des éléments pour les différentes solutions. Voilà, donc bonne idée. Et je vous invite à plus mbooloo mi ñu ngi nuyu kenn ku nekk si ci ma santam xanaa liñ ci yokk du bari ndax ni ko directeur de la l'assainissement waxee leer na waaye si présentation bi ab def léegi dafa am lu mu ci fàtte maanaam maanaam lan mooy RPROC responsable du projet de programme kii moom mën nañu wax ni képp kuy liggéey ci inondation mooy sa kilifa ndax loolu mooy cëram moom moo war a rendre compte sax demee ci budget programme devant l' assemblée nationale ci xaalis bi nga xamee ne moom lañ dugal ci wàllu assainissement eau pluviale yaakaar naa foofu lañ jëmee réew mi te buñ buñ ci àggee moom moom moo ci war a rendre compte devant le parlement ak devant pratiquement même les juridictions kon dafa am cër bu rëy yàlla nag moo ñu dimbali ñu fekkee lii fekkee nag cër la lii deyaa wax li ñu ci mën a jàpp mooy Cheikh Tidiane foqatiwul marché waxal yàlla xam ne foqatiwul benn marché li ko amaloon solo mooy ñu gaaw liggéey bi ci anam bu ànd ak yaxanalu koom-koomu réew mi foqatiwul marché mais aussi joxul kenn marché DEA leeral na ko ci ay propos liminaire li tax foqatiwul marché wax na ko léegi marché dafa am li nga xam ne moo tënk Sénégal yi yépp boo amee temps te loolu moo doon yoon ndax avant même DG sortan bi di ñëw dafa waroon a fekk ñu ko jiitu def procédure bi ba mu jeex ndax loolu lañu ñu sant bu mois de janvier jotee walla sax décembre avant janvier mën nga def sa plan de passation daane ne déwén lii laay liggéey nawet xam nañ at bu jot day ñëw avant nawet di ñëw war nga xam lan ngay liggéey war nga xam ñaata nga koy liggéeyee nga posté ko buñ na agee ci nga ci ci nga war ko lancé nga yë nga def si yéene ne ah man kat bëgg naa def curage mois de mai ku bëgg ñëwal mais bala ngaa ñëw nanga ma wan ne ma am nga xaalis maanaam am nga capacité financière nanga ma wan ne am naa matériel na nga justifier matériel bi est-ce que carte grise sa la nekk est-ce que da ko loué est-ce que dafa nekk crédit baay nang ma wan ne am nga personnel bi nga xam ne moom mooy liggéey liggéey bi ëllëg ci yooyu poñ yooyu la ñuy tënk kan lañ war a jox marché su fekkee délai boobu amul nag on est obligé defar li ñuy wax procédure dérogatoire daal ne ah comme tardé ngeen ba mois de mai mois de juin dëgg la mën nañ fi def appel d'offre ouvert nga xam ne dafay laaj 30 jours minimum minimum DCMP muy kuréel gi saytu affaire du marché moom moo ne. appel d'offre fanweeri fan minimum nga koy yéene ci journal ak grand tirage bu dee amoo jot boobu bu dee amuloo jotu def euh, appel d'offre bu toll noonu kon danga nga lay permettre nga def appel d'offre restreint mais yaay yaay choisir si ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci secteur bi nga jox leen fukki fan ak juróom maanaam ñi ngay jox da leen di woo da ngay woo ma Mademba ak Aliou ne leen man dama yàkkamti dama am fukki fan ak juróom pour que ngeen wax ma lan ngeen may jaayee curage mais ñooñu ngay woo da nga war a xool ndax matériel bi nga bëgg am nañ ko ndax xaalis bi nga yaakaar ne ñoom moom la war a liggéeyee am nañu ko parce que état après service fay lay fay donc yow sa xaalis ngay jël liggéeyee après état fay la donc da nga war a saytu bu baax ndax kii ngay bëgg a jël am na xaalis ndax am na personnel bu nekk ci terrain bi bu doy ndax am na matériel bu doy. parce que loolu dafa am solo su fekkee da nga jël ki nga xam ne dafay dem luye ji engin dafay dem di jël ay journalier mais su su même bu yoree xaalis sax mën na bañ am nit ñu ko liggéeyal même bu amee xaalis sax ki am machine am moom machine am bu ko soxlaa day liggéey mais du la luye machine te loolu moom bu bëggee dem luye ji machine bëgg ci dara borom machine bi bëgg ci dara yemula ki nga xam ne moom dafa am machine am am personnel bu tëdd soit di nelaw te daleen di fay par weer parce que ay prestataire am la ñu employé nañu di leen cotiser di leen cotiser caisse de sécurité kooku du yem ak lay jaay du yem ki nga xamee ne danaan ah am naa marché ONAS damay dem wuti ji ku am ay machine damay dem wuti ji ay xale ñi ñëw liggéeyal ma damay dem wuti ji euh, seet ku ma lebal nga xam ne am na matériel am personnel moom même bu ci amul dara ay otoom di rouler personnel am di xëy même buy fay ñooñu rek da koy jar pour expliquer leen parfois lan moo tax entreprise yi yi nga xam ne ñu mag lañu ñu am doole lañu di gën a yombale foofu ki nga xam ne day wut dara te nag li état santaane mooy bu ngeen di joxe marché na fekk mu am capacité technique maanaam am xarañ gi wane ne daan naa ko liggéey dafa war a wane ne man. 2021 dañ lay wax toujours ne si juróomi at yu mujj yi yow kii ngay liggéeyloo na génne këyit yu ko wóor ne que lii nga ko sant def na ko fi daaw ak daawaati jéeg ak daawaati waati jéeg su ko deful waroo ko jox marché bi loolu la ko des marchés tëral muy appel d'offre restreint comme muy appel d'offre entente directe comme muy appel d'offre ouvert dara wutalewu leen délai dong moo leen wutale délai délai appel d'offre ouvert délai 30 jours la appel d'offre restreint délai fukki fan ak juróom la entente direct amul délai da ngay signé léegi commencé liggéey léegi loolu dépendul ci ministre dépendul ci directeur DCMP direction centrale des marchés publics ak ARMP ñoom ñoo ne nii ngeen mën a liggéeyee ci loolu la ci loolu la ñu liggéeyee première étape bi mooy directeur wax na ko léegi avec six entreprise yu njëkk yi mais bi ñu demee le 27 juillet ba xam ne affaire bi kat am na ay réeróo man mii fekkee cër la te yàlla na nu yàlla musal fekke bu mel ne wute ñun ñoo ne ministre lii li ko mën a jubbanti mooy écart financier bi bëri na c'est un carnage financier parce que mënoo jaayee kilomètre curage xam nga canal un mètre 50 kii daf ko daf ko tekkiwul mooy canaux yu ndaw yooyu ngeen di gis nga xam ne un mètre cinquante lay nekk moo bu yaatoo ba yaatu profondeur un mètre kii ne la man bu ma ko nettoyé te suñu canal yi ñu ñëpp gis nañ ko suuf moo ci nekk kopp kafe toile curage yi lu mu metti metti metti ay peel nga leen fekk ñu yore waaw boo nee man un kilomètre maa ngi koy jaayee fukki million ak juróom-ñett kii ne man un un kilomètre maa ngi koy jaayee un million cinq cent mille mais déjà problème am na mënoo jaayee un kilomètre curage ci dix huit million am keneen kuy jaayee un kilomètre curage ci mille cinq cent te loolu mooy prix yi nga xam ne daaw daawat jéeg daawaati waati jéeg yëpp loolu moo fi mas nekk ñun ñoo ne ministre ne ko déjà problème day am parce que man gëw woon ne sax procédure bi doon na àgg ndax dafa am li nga xam ne aussi balaa ñu la koy signé da ngay am attestation d'existence de crédit da ngay wane ne ah man am naa xaalis bu ma fayee parce que même DSMP nanguwul ngay liggéeyloo nit te dencoo bi. da ngay téye xaalis ba mu wóor ngay sor di dem kon ci procédure boobu la ñu proposé ministre ne ko li fi sës mooy ñu arrêté procédure bi ndax lëndëmte bu rëy am na kii wax na ko léegi Pedre dana si dellu si waat entre les devis yi nekk ci DAO bi ak les devis yi nekk sur le terrain parce que mënuñu accepter mu am un préjudice de un milliard neuf cent par at te bu la neexee nag parce que marché clientèle dafa ne may chance ne la bu fekkente ne marché clientèle bi dañ ko signé si lu ëpp fukki weer ak ñaar am nga droit bu déwénee ñu yokkal la prix unitaire yi si la base de la révision des prix kon ñu jàpp ne li gën a wóor mooy déjà cher na mais comme ñoom am nañ possibilité yokkaat ko déwén mieux vaut ñu arrêté ko léegi reste dans les budgets yi nga xam ne moom lañ prévoir woon ba pare. ñu permettre joyantiwaat procédure bi liggéey ak ci nga xam ne noonu lañ ko mën a doxale ci ni mu gën a gaaw ci loolu bi ci comité bi daya wax na ko léegi ñun ñu ne waa ONAS ñan ngeen daan liggéeyal ñi nga xam ne am nañ expérience am nañu capacité financière am nañu capacité technique am nañu personnel parce que marché public buñ lay laaj dañ lay laaj nela la sa personnel da ngay génnee cutis sociale nga ne yow am nga 90 personnes yooyu cotiser IPRES am nga 90 personnes yooyu cotiser caisse de sécurité sociale loolu mooy wane yow am nga personnel ñu ne waa ONAS ñu ngi toog DEA mi ngi toog yéen a gën a xam ñi ngeen doon liggéeyal wax leen ñu si ñi nga xam ne am nañu personnel ñoom ñu ne nañu jël delta am na personnel te nag lu nit gàtt gàtt xalaat. gis nga oto bu ñu bind delta gis nga personnel bu sol yére delta camion delta yi kenn bu ko fi ñoom ñoo ñu proposé delta ñu ne ak kan ñu ne ak Vicas am na expérience am na personnel am na matériel ñu ne doyul nañu wutaat yeneen ñaar ñu ne ceytu ñu ne def ma ne non j'espère bien que ne doy na elage ñu ne ma noonu nañ ci yokk kenn ki nga xam ne sax yéen si yow la doon liggéey mën ne nañ ci dugal BDTP ñu kat ñu dem ba si biir ñu dem no vraiment bu ñu indi embarras de choix ministre bi nga xam ne après du xam sax lu muy def nañu xool les plus performants des ministres nous on prend notre responsabilité daane ñii sont les plus performants jàpp nañu daañu liggéey affaire bi dans le temps et dans les délais ñu dindi ceytu dindi BDTP ne ko muslim yi jàpp nañu ne ñaar ñii suñ leen ko joxee daañ ko liggéey ca na mu waree ñu def proposition bi te même bi ñu def proposition bi foqatiwul comme ni ñu koy waxee non moom dafa amoon yéene daal di ne cee ñii même ay sénégalais lañu ils ont droit ci commande publique nañ leen jàppale nuñ leen di jàppale mooy lii ñu yore kes néew nañ leen ko jox li nga xam ne jot nañ ko liggéey ñu continuer contrat boobu li nga xam ne ax na yéen mënul nekk nag nañ ko jël jox ko ñeneen loolu moo doon yéene Cheikh Tidiane mais doo dem ci biir gis ne boo dawalee continuer si procédure boobu yaa ngi indil état loraange bi nga xam ne mën na ko topp pendant trois ans parce que marché clientèle boo ko bi bu sañoree am nga droit reconduire que déwén ak déwén jéeg si la ne attention affaire bi mu ngi bëgg ëpp loxo il faut quand même ñu arrêter tout la procédure reprendre te reprise boobu moom man maa ngi toog mu ne DG ONAS yow yaay reprendre procédure bi lii ñu wax nii ñii ñu proposé waa ONAS propose ko dafa ne yow yaay reprendre procédure bi mais pas le ministère ba li ci am am si je pense que wax na ko léegi directeur bi général bu bees bu mu ñëwee dossier yooyu bokk na si dossier yu mu fi njëkk fekk pour agréé ko la ca des nag euh, vraiment ñun Cheikh dañu fii la ñu fekk bu ñu magul it maguñ bu ñu bu ñu ko magul maguñu kon duñ fi nekk di ko wax pour lu ko neex walla di wax li nga xam ne mooy yàq kenn pour lu ko neex lii muy liggéeyee ak man parce que man Cheikh Tidiane mooy approuver mes marchés c'est-à-dire que ONAS c'est le PCA qui approuve tes marchés yaakaar na yooyu aussi dafa baax nit ñi di ko xam marché bu nekk dafa am ki nga xam ne moo si am cër man en tant que direction nationale jusqu'à cent million su ma doon lancé marché ba 300 millions benn nit moo si am dogal mooy Cheikh Tidiane su ëppee cent million nag keneen le euh, ministre des finances moom moo koy approuvé kon kii mënul foqati marché bi nga xam ne feneen la nekk te wax dëgg neex yàlla bu fekkonte ne. li ma gis mu liggéey ko ak man parce que quand marché ba léegi ñu suñu ay marché fii la ko fekk dafi fekk suñu ay marché yi nga xam ne lancé woon nañ ko avant muy ñëw te saytu na ko nam ko war a saytoo mosuma woo ne ma yow marché bi nan la demee ak lii ak lii ak la kon ku doon wut gré à gré wala ku doon seet koy jox marché je pense que ne dem ONAS day sori mënoon na yem ci biir structure bi nga xam ne ñun moom mooy approuvé suñuy marché te man mosuma jàkkaarloo moom ne ko sama marché bi tardé na. wala sama marché bi war nga ma ko signer dana ko saytoo ak ay service bu dalee xelam mu signé da ngay xëy ñu indi la sa sa këyit bu dalu xelam mu delloo du la du wax ak yow sax le secrétaire général lay def ay observation jox ko nekk lii nañ ma ko saytu wala mu laaj ko waa IAF mooy corps de contrôle bi nekk ci biir. inspection technique ah. inspection technique inspection technique bi nekk ci ministère bi ma marché bi kon dañuy setal rek ne bu fekkonte doxalina bii muy transparence doxalinam bii mooy yaxanal euh, les ressources publiques bu ko doon wane kon si ñun ñi nga xam ne moo ñu yëlif foofu la koy njëkkee te wax dëgg fa neex yàlla je pense bien que ne en tout cas je suis administrateur de crédit responsable de passation des marchés ba mu fi ñëwee ba léegi fii a ma fekk te marché yi may déroulé yëpp dafa fekk ñu lancé ko ba desul lu dul approuvé te yëpp mosuma toog ak moom ñu wax si waxu marché te samay marché ñu ngi daw correctement kon kooku war nañu mën a indi ay seede du moom mooy foq ci marché wala di xool lu mu am si marché wala di xool kan la si ci marché. Euh, buñ ko gërëmul waruñ ko donc c'est ça et coow li ba fi may wax ak yow nii vendredi bi coow li di am je pense que Touba la ñu fekk xoolal Touba tey kii il mérite ay standing ovation bu nu ñëwee tubaa dañu ne woon ne non non non c'est pas possible ñu def deuxième conduite 7 kilomètres mu ne bu ma kenn wax ne ma contrainte. c'est ça le mérite de Cheikh bëggul dégg ay contraintes quel est problème ñu ne ko woy conduite bi mu leen y a problème j'avais appelé à l'usine il a appelé Derviche directeur général CCS ne ko non avant màggal gi dama bëgg toute la production de tuyaux PVC DN 600 pour Touba ñu finaliser ko et sans condition Derviche ne ko ah si dinaa une seule condition bu ñu couper courant bi mu ne ko d'accord ça je suis d'accord il a appelé son homologue ministre de l'énergie il n'est pas question ñu couper courant ci secteur bi parce que dañu soxla tuyaux yi avant màggal ñu promettre ko loolu bërki dem vendredi bi coow li am on était à Touba et on a vérifié que toute la conduite a été posée de Kër de Ngelamu à Kër Kabou sur 7 kilomètres mu nekk quelque chose d'inédit quelque chose d'inédit. Hmm? sur 3 mois la waroon doon. sur 3 mois la waroon doon donc ça été fait sur combien kii mooy docteur projet mën na si ñëwaat sax pour plus de clair. 19 jours 19 jours donc kooku kooku bu ñu koy waxal ay waxu bi dafa rafetoo ça c'est le vendredi le samedi vous avez vu comment lui-même il suit les actions sur le terrain c'est-à-dire que dafa di ministre bi nga xam ne non bu baax bi la li gars yi di wax bu baax bi moom bu baax bi la bu baax bi la waxuñu ko nag pour sàmm suñu post wala pour non non non billaay wala taalaay def moom bu baax bi la parce que transparence bi muy woote loolu lay doxal man je suis administrateur de crédit nekk personne responsable de marché ma suñu seq man ak moom waxu marché vraiment euh, j'ai trop monopolisé la parole xëy na yeneen yi ma si bëggoon a wax mën na ñu dellu si si mais li ko li ko kii waxee léegi également on est disposé bu ñu jógee ci point de presse bi pour apporter d'autres contribution d'autres d'autres éléments sur sur sur sur l'ensemble de ces aspects-là